jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Langsar gox boo xamante ni goxu làmb la boo tuddee Langsar sa xel dem ci sampion euh, yoo xamante ni dàgg na yàgg nañ fay jóge di baawoo di dem di bëre ji di defender couleur bi nga xamante ni mooy couleuru Langsar tey nag ki ñu fi woo fan si club Feugeula la mu nekk la grand champion nga xamante ni yàgg na dund ay affaires sociales waaye tey wàll gi da cee gën a raw mu ay fan si club dajale. li nga xamante ne mooy seen i seen i fukki dërëm seen ñaar fukk seeni i téeméer seen lépp ànd ceeg seen mbër fëgga la ngir joxe ndog yi nga xamante ne ñu ngi koy jox jaamu yàlla yi gannaaw loolu dañuy dugg xool gars yi lan lañ dajaleel jaamu yàlla yi nan lañ ko fas yéene defee comme ñu koy neen daanaan di defee su ko defee ñu wéyal waxtaan ay ayca kaay leen gaa yaa ngi noonu sama gars yi ayca ndeysaan gis ngeen teraanga yaa ngi noonu di génn ngeen sama gars yaa ngi noonu di génn gis ngeen ay ca Adama ñu topp ci ànd ak gaay wala kaay ba tey jaxagul de gaay yaa ngi noonu

رمضان شهر رمضان شهر رمضان ويرو يالا لا واو شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان ويرو يالا لا sahru ramadana sahru ramadan sahru ramadana weeru ngërëm la waaw waaw sahru ramadana sahru ramadan sahru ramadana weeru ngërëm la sunu ramadan maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw ñu ngi lay fay tribunal la man Thier waaw Thier ñu ñëw tey ci ndog yi nga xamante ni yéen a ngi booloo di ko def ànd ceeg seen champion fëga bi lan la ak initiative bi fan la jóge waaw ndogu moom bon nga jox nit ki mu lekk rek te loolu lañ si doon jël te lii nii nii mafia mënera bi ñoo ko dee ñu jiital si tamit fëga sunu grand moom moo amoon idée bi gars yi toog ci waxtaan si ñu créé ko chaque euh, weeru koor ñu koy def benn yoon wala ñaari yoon mais daaw bi passé ak Covid bi moo taxoon defuñ ko woon moo tax ren gars yi associé na gars yi nañ ko dóoraat ñu doog ko songaat nii pour jox nit ñi lu ñu xéwaloo ndaxte nit ñi dañuy tardé heure ndogu nga jox leen ñu am luñ luñ luñ xéwaloo quoi waaye. gis nañ ni li ngeen fi boole. ci ay ndogoog xeetu berne yu mel noonu dafa laañ ay moyens moyens yooyu fan ngeen ko jëlee moyens tey boo xoolee tey soxla nañ li nga xamante ne ni gars yi dañu doon jàppale biñ ko defee bi pass dañoo toog fii doon réunion naan buñ si xaarati kenn mais ku ñu si ñu si fekk si ñu jël mooy yooyu noonu yëpp gars ñooy cotiser am na ñi nga xamante ne nag def nañ si seen teraanga bëgg na nit ñi xam am na ñoo xam ne bëggul nit ñi xam looloo tax tey du ma mën a tëb tëb tëb tëb wax ñii looloo tax mais gars yi Baye Fall yi mën a rëy ñoom ñëpp si dugal seen xaalis ñoom ñëpp ñëpp ñëpp si jàpp waaw foofu la jóge waaw looloo tax yi maa ngi lay nuyu ñu ngi lay delloo siyaar ku baal ma fàttama tur bi tur bi Idrissa Saare la waaw waaw Idrissa Saare waaw initiative bi gis ngeen nu mu demee de lii moom wax dëgg na yàlla dañoo bokk ndey bokk baay ndax parce que booy xool dañoo am suñu grand frère muy fëgg la mu ak ñun bokk ak ñun tamit ñu bokk ak moom toll ak moom doole gis moom dañ ko def yàlla rek ñu si ngir dara wala am ci dara wala am leen ciy gañe dañ koy def te yàlla rek tax di ñaanal tamit suñu champion bi lépp lu mu def ci lii tamit yàlla ko yàlla fay di ñaanal tamit bépp grand boo xam ne dugal na ci loxoom dëkk ci bi mu bañ ñu tudd turam ñii ñu bëgg ñu tudd seen ñooñu ñëpp ñoo ngi leen ñu ñaanal balaa déwén mu gën a yokk te lii dañ ko fas yéene di ko def chaque année bii mooy presque bu ñu neexee ne troisième année bi ndax parce que deuxième année bi dafa tombé Covid moo tax dafa ñëwoon dara mais yéen teg mu demee tamit yéen tamit ñu ngi leen masawu di leen remercier bu baax baax a leen wax na lii yombul na parce que li boo gisee rek xam nga ne yombul na parce que boo xoolee ñu ñëpp ay xale lañ ñu ñëpp ay xale lañ ñooy toog ñooy ànd ñooy fawoon lu ne ñun ñoo koy defandoo bañ ko dañoo tuddee suñu bopp mafia mën a rëbbi mafia mën a rëbbi bu ñuy wax lan mooy mafia signification ñu ne gaynde jàmbaar yaa ko comprendre moo waral lii loolu la rek ñu ngi leen ñu gërëm di leen sant wasalaam landi ndeysaan lankaay laa nuyu naa la. waaw grand fay am jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. initiative bi doon loo xamante ni képp ku ko gis foo mën a nekk ci réew mi da koy da nga ngir rafet gi mu rafet ay xale yu ndaw boole seen i moyens euh, di defar ay ndog di ko jox nit ñi ànd ceeg seen mbër fëgg la ban initiative bi nu mu dukkee ak bi ngeen ko xewlee ban gis-gis ngeen ci am. waaw bi moom ñu ngi sant yàlla bu baax parce que comme bi moom ñun jeunes yi man dama leen di féliciter quoi en tant que jeune. wu yu bari donc tey boo gisee ñu def lii bon entente la boo xam ne moo jiitu suñu biir ñun ñu nekk ay jeunes yoo xam ne xam nañ fu ñu jëm ak fu ñu bëgg euh, loolu moo taxoon ñu def lii def benn acte boo xamante ni chaque année dañ koy def donc dañuy remercier aussi grand si jàpp yëpp di suñu yenn copains yi nga ni ñii ñu ngi bitim réew mel ne Abdoul Mamadou ak ak ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ si donc lii day wane ne rek fii am na entente mais tamit am na iman parce que lii ku ko def tamit dafay ku amul iman mënul def lii ku gëmul sa def lii ku xamul fi ngay teg sa tànk mënoo def lii donc loolu moo waral lii bon di remercier tamit suñu grand yëpp ñaanal nañu teg nañu si yoon wax nañu li ñu war def vraiment ñu ngi remercier ñëpp vraiment. xam banlieue xam ne dañu solidaire ñoom ñëpp dañuy àndoo seen dërëm ak juróom bu seen mbëru làmb di bëre sax da ngay seetlu ci ñoom loolu loolu lan la. Ah, loolu mooy li ma la wax sànq rek maanaam booloo la ku nekk da xam yaay kan ku nekk nga xam kan ku nekk nga jox ko cër loolu moo waral lii. fii doo xam kan moo nekk ci lu rëy wala kan moo nekk ci lu ndaw ay personnalité ñoo fi nekk ay jeunes yu dynamique yoo xam ne dañu nekk seen domaine yu compétent mais tey doo ko gis donc loolu dafay firnde rek ni banlieue vraiment c'est le bon lieu quoi franchement banlieue c'est le bon lieu waaw c'est le bon lieu. Daouda. Daouda Sandwich. woy si aar gaay yow kaay dinaa la kaay lan nga bëgg a wax. non non. lan nga bëgg a wax. initiative bi na lépp na rafet na. gars yi dañ ko tàmm di ko def ak suñu champion bi ren yàlla def fekk ko ñun ñoo fi nekk ñu jàpp ci rek ba mu gën a taar ñun amuñ ko dut fëga ñun Lamsaar Tivaouane ñun man bokk bu ma xamee làmb à cause de mbër moo ma jaral lu ne wax dëgg yàlla ma ànd ak sama waa société muy kosa di euh, ñu ànd ak waa Lalia mooy jël ko jël ko. publicité gratuite waaw waaw gis nga meew bi meew bi gën meew bi am doole meew mi neex day neex ci xale neex si mag doole euh, sponsorisé euh, ak ndogu bi ñëw jàpp ci rek te yàlla tax. voilà loolu daal la amoon lu may sànni. wolof naan foo dem fekk góor toog jigéen ju baax a ngi ci wet gi. kon yéen a dooleel seen mbër. waa dëgg du neex ñun amuñ ko dul moom sans moom duñ dem sans moom sans moom tamit sans ñun du dem. voilà ñun daal amuñ ko dul moom ñuy wax ca kaw ca kanam ci lu baax rek kom combat bi mu dëgmal digganteem ak armée suñu borom may ko ndam lu sedd guy ci kaw armée ci barki Seydina Muhammad ci barki sawru Ramadan gi ko sa di ca kaw ca kanam ci lu baax voilà. Daouda Sandwich. oui gars yi nga bëre dégg musuma bàyyi. maa ngi ñaari contrat maa ngi ñaari contrat. oui maa loo soodu bu yaraax. ak euh, kii bu ginnaaw raay booy Zoro bu ginnaaw raay. Zoro dina neex de. day neex tànn bu yàqu. foo nekkoon foo maa ngi tineel yi rek nag nekk tineel yi liggéey wut doole laaxatu xam ak boole ko jaamu yàlla. Mm. waaw noonu la demee. tey initiative bi. ñuy waa di def ndogu. jiital ci sa mag nga xam ne ku wax fëgg la tudd mafia mënërë bi mënërë bi léegi gis-gis bi lan la waaw mënërë yi moom dëgg kontaan si ñoom nag parce que bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu te booba léegi ñu ngi liggéey wër na Sëriñ Bamba man moom aw ma seen fay parce que dañoo fonk suma mag fonk ma man mi di wax ak yow suma mag du xewlee ñu rey seen bopp du ma xewlee ñu rey seen bopp kon amuñu lu dul ñoom waaw di si jiital nag seen mag ñi seen mag yi ñoom Badara ay Boy Gueye ñoom ñëpp ay grand frère lañ parce dañoo jiital rakk yi rax yi déggal mag ñi xam nga ñu bokk nday boo ko bàyyi kon tey lii dafa nekk lu rafet ñun amuñu lu dul lamsaar ñun couleur lamsaar lañ am ñun fuñ nekk lamsaar moo ñu ñor amuñu lu dul lamsaar kon lii nekk rafet di kontaan si ñëpp nag kontaan ñëpp ay boyge ay bajara gaa yëpp kontaan si ñoom ay duudu ay laaja maa amar daal ñoom ñëpp mention spéciale man dama kontaan ba mënu ma wax parce que ndog at mu yokku chaque at mu yokku kon lii nii am ni ren xam nga ndog ko si jàmm cant ko jox jàmm yàlla yi berne leen ñu lekk naan kontaan ñoom bu baax fëgal na ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal fa la mu nekk suñu borom yokk ay xéwalam bu baax a baax a baax waaw di ko ñaanal jàmm bu wér waaw yéen moom kontaan nañ si bu baax tamit torop torop torop parce que nit amul dul mbokam tey ñakul programme boo xamante ne war ngeen fa mën a dem ngeen bàyyi seen i yitte si ñun teewal ñu soto ñun ñu dooleel ñu kon dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom ngeen dem ba sut si télé yi gën a kawe télé yi parce que nit amul dul mbokkam te suñuy mbokk ngeen waaw kon yàlla suñu borom taxaw dooleel leen ba ngeen nekk si tele yu gën a kawe yu si àdduna bi soro ramadana weeru yàlla la waaw waaw soro ramadana soro ramadana soro ramadana weeru yàlla la waaw waaw sahru ramadana sahru ramadan sahru ramadana weeru ngërëm la waaw waaw sahru ramadana sahru ramadan sahru ramadana weeru ngërëm la sahru ramadan رمضان شهر رمضان شهر رمضان ويرو يالا لا واو شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان ويرو يالا لا واو sahru ramadana sahru ramadan sahru ngërëm la